مستقيم لا وفرج عنه الخموات ضرر يا قلب يا قز يا مولاي يا ضرر يا أنا طالب شيخي أنت الملاك إذا مسدد من من جلال أنت المعاد ahwaalu tantasiro yonnen bi ya imam al anbiya yonnen bi ya imam yonen bi ya imamal anbiya Mustafa ya imamal anbiya yonen bi ya imamal anbiya Mustafa ya imamal anbiya def leen ni ya imamal anbiya yonen bi ya imamal anbiya ya malatal atqiya ya siraj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 في محكم تنزيلي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا محمد الناصر الحق بالحق تلعة الحق بالحق الكنز الأعظم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وكل من التشبث بأزياله وانتمى بأبوابه وعلى بقية المحبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قرب المكتوم تاج العارفين وممدهم شيخنا أبي العباس أحمد التيجاني سقانا الله من فيض معارفه بأعظم الأواني ورضي الله عن خديمه وشيخنا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين ورضي الله عن قدوتنا وجدنا شيخ الحاج مالك عليه رضا الله تعالى المالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمنا تندقلو تشرنو damay njëkk a jéggalu guddee gi dama nekkoon ci ñeenti gàmmu te yépp ay kilifaama fa yebal sànq ba tey moo woo soxna ñi maan ak ni ko maa ngi ci yoon bi mu ni ma cerno mi ngi lay xaar ma koy jéggalu bu baax cerno maa ngi jéggalu guddee gi di ñaan suñu borom yàlla mu mu doon suñu mujj gàmm yàlla nañ ko gàmmu at yu bare bari yàgg fi fekk cerno mu jiite ñu di ñu ñaanal ba déwén insha allahu taala te am nañ ci yaakaar ndax toogaayam bii mooy toogaayu cerno Bachir Tall الخليفة لجدنا المجاهد الكبير شيخ الحاج مر الفوتي رضي الله عنه ديكو نيانال يالا يالا دوغل كوتي فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يالا موني كوي ديف لو باخ يالا باي لا في تا ان شاء الله موم تي لو باخ لا نيك بودون موم رك باخ نا با نوبي وايي باخ لاموي باخ ييب امنا باخ بو بون bax la muy bax amna bubon, bu bon amna bax bu bax amna bon bu bax amna bon bu bon xam ma ndax dégg ngeen li mo xam de ngeen bal ma nak sama alpulaar dafa xawul leer man deguma sama soxna nak alpulaar la mi may jangal waye neena makoy fay 10000 francs par mois man ko loolu de waaw léegi nak motax góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax sama alpulaar leerul la ngeen baal ma wolof bi incha allah dafa am baax bu baax am baax bu bon am bon bu baax am bon bu bon baax bu baax mooy nga baax di baaxal ci sa baax ñeneen la daloon Cheikh na Ahmada Tidiane maamam ba mu ko feeñoo niko dama lay jox salat al fatih mi niko waye nak condition bi moy ma don babu najati nga xamni kuma sop bala muy de don waliyu mota Cheikh na tidiane kuko sop bala ngay de doon waliyu walan yamut man yuhibbu shaykhana illa iza sara waliyan biatina Cheikh Alhaji malik ko ci fakatu tulab motax tidiane bok lak bokkal cheikh taalibe cheikh moy ki sop Cheikh na tidiane ba nopi ñëw ci ku am digel ku melni ni Cerno mu jox la salaatul fatih jamono bam la ko joxe am nga gratu junni waliyu te laalagoo ben per fa baydatuhu tuba'u akhi bi alf fa ma lil farq fi ba'i al kalam koku lañu tuddé ciuju tarixa bi yaangi doga doog a jël laalagoo ben per go sa keur am nga gratu junni wali waaye ki sop cheikh te jëlegul mom mom bala muy dee don wali kon cheikh na tiyadi forna bako mamam feño dafa niko li nga may jox à condition ñëpp mën ci jariñu kon du won pour mom bu don pour won mom kessé da nan mbir mi ci man lay yam waye dafa ni ko naa nekk baabu najaati amara nabiyyu imamana bi tanazuli li ifaadati l axlaaqi bil yuddil jëli moo tax cheikh al hayyam al futi radiyallahu anhu neena buñu lalay manal wazifa ba fa bat ya da ag ñakoy deg dégg ñëpp seen yaram araamal na safara même ñi nan ñi il dérangeant seen wazifa yi moo tax Cheikh na Tidiane ay mbiram yéeme tasattattu bi dëhri an jil tasattattu bi dëhri an dilli janaaxihi Cheikh na Tidiane ay wax fa sirtu ara dëhri wa laysa yaraani wa in tasali l ayaama masmiya ma darat wa ayna makaani ma arafna makaani moo tax ay mbiram nëbbu baax bi baax nag mooy nga baax di baaxal moo tax ma doon andi Cheikh Tidiane dafa baax baaxal sauvé ñu ñun ñëpp andil ñu salaatal faatiha baax bu bon mooy nga baaxoon rek yam yamale baax bi ci sa bopp boobu baax na mais baax bu bon la da ngay def ni Cerno guddi gi jot mënoon na toog néegam rëkk ay salaatal faat faati mag ñi fee ñu ko yàq yaqadatan mi ngi sirru gi waaye nag mu ni naa ñëw jaxasoog yéen ngeen ñëw mu toog toogaayam bi ngeen gis ko gisam bii mooy gisu Seyduna Muhammad tey ci guddi gi ndax al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo fi uutu Seyduna Muhammad kon am ngeen chance boobu mënoon na tëju néegam mais mu génn ngeen gis ko xool leen ko xoolu tabarrukan bi niyati nadrati Seydina Muhammad loolooy tax nga mën a jariñu ci sa sëriñ waaye ñoom seen modeste yi dañuy làqatu làqatu ah Thierno dafa woyof Thierno Thierno ah moom de moom moom foo ko woomu kii moom de nangam nangam fekk looloo lay lor balaa ngay mën a jariñu ci moom fonk leen ko téye ko seen fukki loxo ndax li yombul ci ab sëriñ woyof ànd ak ay njabootam. jàpp ni sax mom talibé la ni yéen waye la ngeen bëgg nak ci buntu yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam ak ci Cheikh na Tidiane Cheikh El Hadj Fouti Cheikh El malik yéen ñi fi tew ci mom la ko yàlla jaarale woyofam ak wàccam bu mu len nax mukk bu dul lolu du ngeen jëriñu ci mom mom nak fakk mu wàcc man tawaadaa lillahi rafaahu allah wa man kabbara wadaahu allah kon loloy bax bu bon moy nga bax yamale ko sa bop bax na me bon na bon la bon yep amna bon bu bax moy nga bon ba nopi yamale ko sa bop lol bon bu bax la bon bi bon moy nga bon don chef de bande di bonal ay nit ci sa bon bon bu bon la motax mbax bi bii mu ñu fàggul ci guddu yoon ci muhammad nañ ci sante suñu borom subhanahu wa taala yonent bi nak kan mo fi bëgg yonent bi fi amna ah yeen ñëpp bëgg ngeen ko man li ma jaaxal nag jigéen ñi cerno ñoom daal man dama ni yonent bi ñoom ñoo gën a yëngu góor ñi dama ni ko bëgg yonent rek ñoom ñu nii bu dee saraxe jigéen ñee saraxe man daal góor ñi waaye yàlla baax na maa ngi koy wax léegi ni xëy na jigéen ñi lañuy joxe góor ñee leen koy jox moo tax tam dara du ci amul benn problème waaye fu ñu tudd yonent yàlla Muhammad nga fittasu yaa ngi fëgg ci buntu aljanna Cheikh Hadji Malick ba muy tudd juróom-ñetti alamat yi wala ni bëgg nga yonent bi bokk na ci waltizazu qina tadhkurihi min al alaamaati hëbli daaka dal umami nee na ñuy tudd yonent iltizaz moy ni moy fetasu wala jaayu wala ngay big ci yonent bi motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu wa taala fonk nako fonkay bo xamne gis nga tay ci guddigi gi guddi tey gii ci la yonent bi juddu nel benn guddi tey bii ci la leeru yonent Yàlla Muhammad tukkee ci ndiggal Amina dem ci ruux tukkee ci ndiggal Abdullahi dem ci ruux ruux mu Amina guddi tey parce que ñu ngi ci guddi àjjuma neel ñaar guddi àjjuma tey bii ñu nekk tam li tax gàmm gi ala dawme mooy guddi àjjuma guddi altine bu ne yonent Yàlla Muhammad yàlla da koy présenté Bachir dossier jaam yëpp mu leen di jéggalul yàlla chaque guddi àjjuma تفتح أبواب الجنة كل يوم ليلة ويوم الاثنين فيستغفر لكل عبد لا يشرك بالله يونتي علي صلى الله عليه وسلم مالك ويكو توبا نو اعمالنا يوم القميص له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم يونتي الله محمد شاك غودي اجما غودي التين كيب كو بوك تي خيتام نون نيب دنجكاي جوخ دوسيوم مو خول soxna ñi maakat diggante altine ak alxamis lii la fi def ci lu baax yonent bi ñaan yàlla duble ko su fekkee am na lu mu fi def ci rëcc rëcc yonent bi ni ba yàlla jéggal ko ba mu des ñaar nee na ñaar moom yonent bi bu gisee seen dossier danaan unduru haazayni xatta yastaliha ñu ni ko kan la mi ni rajulan kaana baynahu wa bayna axihi shahna mooy ñaar ñu xuloo ñaar ñu dul tuddante bu dee am na ci jàkka ji nag ñu góorgóorlu ñu jiboo fii ci kanamu Cerno léegi mu ñaanal la kon guddi gi ñett daje nañ fi tay la guddi aljuma waye ci guddi aljuma ci la leeru yonent bi toxoo ci ndigal abdullah dem ci amina kan moñu ko nettali cheikh sayid alhaaji malik fan ci xilaas zahab fi sirati khair al arab ñu ne ko mawdu bindal werante dafa bari muni ni layla al arubati ad durr fi rajabin ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور القتم ليلكم muy guddi gi قد حل في قيمة من أطهر القيم الله أكبر soo koy firi da nga naan xal la wàcc na addur wurus ba mu def istiaara moom ngeen tuddee métaphore comme ci yonant bi la tegginu alaaji Malick mayu ko muy wax waxi ndox mën ni yu fal yantirul insaanu mimma xuliqa min maa in yaxruj min bayni sulbi innahu ala rajihi allahu akbar mi ngoog waaw fii day daara la waaw fii moom daara la yàlla mu ni maa ngi bind nit ci toqantalu man niyu fal yanduru l insaanu mimma xuliqa xuliqa min ma in daafiq mooy ndox muy jëñu muy ndoxuk man niyu yaxruju min bayni sulbi wa taraaib waaye innahu ala rajihi la qaadir comme alaaji Malik suy tudd yonante bi du tudd waxi ndox day jël ndox mi tuddé ko wurus mu ni gujji aljuma hal waccina adur wurus ba muy yent yàlla muhammad ci jugi ci ndigal abdullah dem ci ruuxu amina kañ lay aruba aruba bu ndek aljuma aruba la tudon yonent bi ba mu ñëwee la ko tuddé yawmul jumaati guddi aljuma bi tay ci la leer gi toxo ci abdullah dem ci amina legi nak biiru amina tam du ko tuddé bir xayma la koy tuddé tant في قيمة من أطهر القيم ني نكو وا مولا با لير جي واتي دوجي روح مو امينا لو خيو مني دا فا ام بن هاتف هاتف موي كوي ديغ بات بي مي دو غيس جيمم متخ عرب جيل تليفون تودي كو هاتف تي غودي تاي بي بن هاتف دا فا تيم مكه بشير تيم وا مكه رك ام بن بات بوم لن واخ ني نكو مولا لوم واخ مني دا فا ني تنبهو يولن وأنا صبي سيدنا محمد آه. واو واو تنبهوا يولن كون كون تي جاك دي دنا لو ما بروفيتو والا تي بيت بي يول لنغ واو تنبهوا انما الختم لكم أه. min abrin si yamin. dara yu bëri yi maa si góor. moom laa ko moom sax. nee na nee na. Alaaji Maalik nee na dana bëggoon. am na nooral xatmi lii la ko moom. waa ana soppi si dina ma. min abrin si yamin. tanabbahu yeewu leen guddi la. muni anna nural na nuural xat mi leer wi tëj nos ak yonant yi xat fi qimatin ci qayma min aqhar al qiyam ci gën ja sellu qayma moy lan ndokh mi gën ci ndokh yi bi yàlla wara composer nit tay judduna ta te ci biruk jigen bi gëna sel ta moy sayyidatuna amina الله اكبر ñu ni ko waaw alaaji Malick léegi leer gi wàcc na ñu ni waaw léegi ëmb gi moom ñaata weer la alaaji Malick ni werante am na ci yonant bi lu dul ñaar yi ma lay bëgg a wax ñaar yi ñëppati jëppoo lu dul ñaar yi werante nañ ko ci yonant bi Amina ko jur Abdullahi ñëpp ci dëppoo lu dul loolu werante nañ Muhammadun demal Muhammadun nuuru Abdullahi shaybata Haashim mi ngi ci maam yi wa abtimalla fi ma qusayhim bi billahi li ngay way neex na te leer na barakallah amina ëmb gi kañ la tàmbali Maodo ni xam naa ñaata weer la def mu ni xam naa weerante la ci am duma la wax nag ñaata weer la dangay doon nandite nga déglu nag doon mathématicien dëgg doon nandite pour mën a déglu xoolal comme El Hadj Malick buggul daj ji waxu benn boroom xam-xam ñii nee nañ sept mois lañ ko ëmb ñii ni huit neuf dix onze ñii ba ni douze alaaj maa ni duma la andil chiffre mais jàppal ni weer wu ne am na yonant bu ñëw ndokkeel si Amina ni ko maa ngi leen ndokkeel yaa jur yonant bi chaque mois rek dafa am yonent bu ñëw feñu amina niko ha anti humilti badran sayid al umami iza wadatihi sammihi muhammadan al amraktumi ay kitman fa legi comme chaque mois ben yonent ñëw legi bashir da ngay compter nombre de yonent yi ni ñu tollu nombre bobu wéri li ñu ëmb yonent yàlla Muhammad demal loo ñu ni ko waa weer wu njëkk bi aadama ñëw wa jaa aadamu tabshiran wa shiishu laha idrisu nuuxun huudun والقليل سمي ثم الذبيح كلم الله كلمته في أول شهر fii tarti bi laa tahimi boo compté yonent yi neuf lañ neuf mois la ñu ëmb yonent bi demal guddi tey ba yonent yàlla Muhammad du juddu Maodo xam nga nu mu juddoo waaw xam naa ko lan la njëkk wax moom liir bi xam nga ko waaw liir buy wax miin ngeen ko yonent yàlla Muhammad tey bu mu juddoo wax na doom buy juddu bopp bi lay jiital yonent bi tànku ndeyjoor lay jiital teg tànku càmmoñ sukk samp ay tànkam ñëpp ay baaraamam tàllal baaraamu sànnikaay bi naan allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa bukratan wa asila ñu ni ko bindal mu ni yumi sababata mislal musabbixi waa xanaa kenn soppal yonent yàlla muhammad ah yumis sababata allahu akbar alaaj malik nee na yonent bi ba muy njëkk a judd yumi ma ngay junj as sababata baaraamu sànnikaay bi yumi sababata muy aji ngëpp asaabiahu yeneen baaraamam kon dafa ngëpp baaraam yi moom yonent bi tallal baaraamu sànnikaay bi ñu ni ko alaaj malik leerul de mi ni mis ñu ne mu ni mislal musabbixi soo ko bëggee xam rek mi ngi mel ni comme aji sàbbaal comme kii sàbbaal buy julli ni mi mel noonu la mel maanaam daf lay expliquer am koo xam ne dafa ne ko li ma li nga may expliquer leerul mu ni xoolal cerno buy jaamu yàlla ba àgg ci taaya na mu def nee na yontu yàlla Muhammad loolu def mislal musabbixi ndax fa la yam mi ni déedéet yarnul uluwa ma ngi xool ca kaw zahima mi nekk boroomu yitte loo teg

nee na wax nga la ca gannaaw dëgg mi ni ki wax loolu du man waaye yontu yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mhm. moo tax sànq ma laaj ku bëgg yontu yàlla Muhammad am ñu ñu ci bari fettasu ni bëgg nañ ko waaw léegi bëgg yonent yàlla Muhammad màndarga bi mooy nga topp sunnaam képp ku bëgg yonent yàlla Muhammad maa ngi lay nettali lii bul xàmme ki la bëgg ak ki la bañ ku bëgg yonent yàlla Muhammad bul xàmme ki la bëgg ak ki la bañ jikko bu jafe la yonent bi dëkk nag yuhud yuhud bi bu xëyee day ñëw ci buntu këram tuur fa mbalit te jigéen la naa sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha bëgg a dal ci kawam yonent bi ni ko déedéet jëlal rek nga tuur yi ñun fii Sénégal lañ koy jàppee ñàkk fayda waaw di nga xam ni maa la gën a doon xaj xaj yi bari di da ngay jaay wëyu di nga xam maa la gën a wëyu wëyu yi bari moom na wëyu nga baax dangay jaay bon di nga xam maa la gën a bon moo tax dëkk ak ku bon baaxul ndax dalay def lu bon nga ni dina maa ngi koy wan ni maa ko gën a bon yaa ngi bon te yëgu ko moom na bon nga baax ولا تستوي الحسنة أنا حفاظي ولا السيئة ادفع بالتي فإذا الذي وبينه عداوة كأنه ولي حميم تيرلا وما يلقاها إلا الذين وما يلقاها إلا ذو حد عظيم بلا نغي أم am cër ci yàlla nga baña xamé ki le bëgg ak ki la bañ yahud bi bu xeyé tour mbalit ci kër yonent bi sayyidna aisha bëgg dal yonent ni ko dédé jël rek tour yi ñu tok ñetti fan yonent yàlla Muhammad gisul ku tuurati mbalit ci buntu këram mu laaj Sayyidatuna Aïcha mi ni ko ah suñu àq ko dal dafa feebar fan yii yëpp yonent bi ni ko jox ma sama manteau mu jox manteau yonent Yàlla Muhammad dem seeti ndaw si fekk ko mu tëdd mu nuyoonteeg moom ni ko ah man kat dama doon seet si di la ñaanal yàlla yokk la wér ndax fan yii yëpp dama dégg ni da nga feebar ndax gisuma ku tuur mbalit sama buntu kër yàlla na nga wér di tuuraat mbalit sama buntu kër. ndaw si wér ci saa si toog ni bi kon l'islam moom lii la santaane mi ni waaw. من بسنك تري دغنا سي ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله مت الشيخ الحاج مالك ني وبخيله وبخيره جلب الورى ولمن اجاب نيل خير مرامي بن بي نك واخنا ني شيخ عمر كو دون بن بي شيخ الحاج مالك توكنا سي جاكا جي ني تيرنا توغي توغاي مو تيد بي يال ني صحابه يور كو ني نكو وري ني ام بن واي بو جوغي في نيو رك di saw saxaaba yëpp daw ñi bocc jaasi utu yonent bi dal leen baye leen ko mu continuer te mi ngi ci jàkka ji de ci néegu yàlla waji tour ndox ba xolam sedd yonent bi ali sattu salaam ni kenn ci sahaba yi jël ndox tour fofa ndax bima yu fariqu ghaliban lay doon ci sen laxdar daf koy note yonent bi wo waji ji ni ko bu masjid li salati la lil bawli jakaji ji dañ ko samp pour julli fi negu yàlla la boo bëggatee tour ndox demal fële douche yaangi nele waji le waa ni ko dañ ma waxon lu yàlla bind ya ci gën lol la don setlu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah aha laka mojizatun ajazat kullal wara demal laka mojizatun ajazat kullal wara moo tax buñ la laajee allaaxira ci asmaullahi alxusnaa yi yàlla ban tuur lay ràngoo nel muntaqimu buñ la laajee ëlëk yowmal qiyaamati yàlla ban tour lay ràngoo Busiri moo ñu ko jàngal walan yadiqa rasulullahi jaahuka bi izal karim tahalla bismi muntaqimi fekk gaa dekk nañ ñépp jàq ku nekk tiit ku nekk xamoo fo jëm yont yàlla Muhammad dekki buy dekk njàppam lañ ko dencé won lay dekk walé salawatullahi wa salamuhu alayhi sayyidil awwalin gaa ñi jaaxle nañ yàlla teg na aljanna safara kenn xamagul foo jëm ñëpp jàq nañ ba ci yonant yi wa shafiu fiina fi liqaai wa kulluna siwa alxibbi mawsuufun bi roxbin wa rahbati loo teg wa sayyidil aaxirin arjazat kullal wara bu ñu jaaxlee nag yonant bu ñu dem ci moom ni ko waaw dimbali ñu jaaxle ah ñun de jaaxle nañ de yàlla dafa mel ni mer na de àllaaxira jot na de ndax lu ne def nañ ko yàlla yàlla tuumaal nañ ko ni ko am nga doom ci àdduna yàlla ni xoolal àdduna la muy rëng-rëng yàlla doo ko dégg sax mu sëqat ndax xam na ni am na bés bu mu ñuy xaare yawma yaqumu ruuxu wal malaikatu safan laa yatakallamuuna illa man azina lahu rahman wa qaala dalika yawmul fa man shaa ittaxada ila rabbihi aha inna inna anzarnaakum azaban yawma mar'u ma qaddamat yadaahu wa yaxuulu kaafiru yaa laytani kuntu turaaba allaaxira la yàlla xam na ni dina ñëw xoola lu ne ñi ngi koy def yàlla xeetu mooy yàlla yu nekk am na ci ci kaw suuf yàllaa ngi noppi ndax xam na ni àllaaxiraa ngi ñëw suñu dekkee nag ñëpp jàq yonant bu ñu dem ñu dem ci yonent yàlla Moussa mu ni am na lu ma war a lijjanteeg sama borom ñu dem ci Isa Isa ni ah man lañ doon tuumaal doomu yàlla loolu laa war a lijjanti yonent yàlla Ibrahima ñun min lee da tàlluma leen gaa ñi xam nga kan mooy des سيدنا محمد موتاخ ولن walan رسول الله jaahuka كبي اذا الكريم تحلى باسم منتخم نما كوي فيري firee mooy yon محمد yàlla كوي و koy فوكال boîte vocale ngay jot kenn ngay woo jot ko amul bu amul vous avez atteint la boîte vocale amul ki ngay wo mi ngi joko ak kenen xara tout mu jël la sallallahu alayhi wasallam dang koy wo jot ko aha gaa ñi ñëw ci yonent bi mu dem ci ron arash sujjóot ndax julli la miin yàlla ni ko julli jeex na julli ci àdduna la yam mu sujjóot yàlla ni ko siggil ishfaatu shafaa wasal tuata laajal ma jox la rammul ma rammuloo la mu ni ko yàlla yama ma garanti woon wadduhaa وليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى نالا جوخ الآخرة غرام مبدويل يالا ني يونت محمد كو مسا جولي تيو بن يون ولا مو مسا لا إله إلا الله بن يون خول لين نيوم نيب نانيو دوغو الجنة ني اني انا نجبر تين حامد ني ني نيغي نيل ني إلى الجنة وشفعه فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب الحب مين محمد موصوف برعب ورهبة آه. جزاكم الله آه. سيد المرسلين انا وامل كل الورى آه. لك معجزة moo tax yonant yi ñi yàlla tappal garab ñuy ay yonent cent vingt quatre mille lañ cent vingt quatre mille yi cent treize yi yàlla jox risaala ñoo ci gën trois cent treize yi vingt cinq yi al alquran tudd seen tur ñoo ci gën alaaji Maalik tënkal ñu ko ca fala bi aadama idrisin wa huudin ويونس ولوط ونوح ثم حاو لحلتي وداود بن سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا ذكرياء شعيب وسالق تقينا رد الدارين في كل وحلتي 25 يوي القرآن تدو جروم نيو جي گن جروم يي موي اولو العزم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل يونس محمد يونس ابراهيم yonent yàlla Moussa yonent yàlla Isa yonent yàlla Nuux juróom yooyu kenn moo ci gën mooy Seyduna Muhammad alaa ya rasulallah ya afdal alwara faha nahnu fi diqin moo tax yàlla nañu yàlla soppaloo yonent bi yàlla nañu yàlla bëgguloo yonent yàlla Muhammad والهادي لسبل المكارم والله والهادي لسبل المكارم jërëjëf loolu laa doon barkeeloo ci guddi gi Cerno sadaqta ala ma qultu fi awdi dinina Cerno loolu laa doon barkeeloo ci guddi gi ah Thierno nee na gars yi doy la ñu de sonn ñi ma. ah. إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في تراهم وبتها للمسلمين نجاة ويكاتي دي نيغ ماي صب حب طه بغ طه نجات المجنة للمسلمين نيل دفكة بكاري وأمان من خول يوم اللقاء لور تق تق تق تي بك نين بغ كدول طه بغ جيجين جو تارو حرام لو ارام لا تي من الا جاب كين لا بغ ارحني حالي خير خفائي فارحني نوبال ما حالي سمي مبير غير خفائي نبو مكو من كين لا بغ مو يونتيال محمد تنبو مكو xat saxaani xat wér na péng ni saxaani nandal na ma kasal mahabbati rabbi sama borom kaasal mahabbati kaasu cofeelu bëgg yonent yàlla Muhammad min fuyudaati xaatimil awliya waaye yàlla nga ko jaarale ci bëbbu kan Cheikh na Ahmad Tidiane mi nga xam ni moo tëj wilaaya dina ko balami bëgg bi ma bëgg yonent yàlla Muhammad man ala jabdu xaalakal axmi jaxasoo na ak sama yàpp wa izami sama yax wa damma ak wa damma ak sama deret riyaa yi duuna riyaa yi te amul benn ngistal dama bëgg yonent yàlla Muhammad ba mënatuma naan médicament bu ma wéral médicament bi may wéral mooy taggal ma yonent yàlla Muhammad ci saa si ma tane xubta annabi bëgg yonent bi nga xam ne annabi moom la yàlla soloo lépp mooy sama farata wa nafli su may naan yonent bi laay gis mooy sama mébét ana soppe yonent yàlla Muhammad su may añ yonent bi laay gis bayti mooy kaaba gi kaaba gi nga xam ni Bachir foofu lay nekk di wërloo ujjaat yi ñuy tawaaf alaaj Abdu nee na su may wër kaaba gi yonent bi laay gis ndoxu zamzam bu ma koy naan yonent bi laay yëg مقام ابراهيم بما يدعو يونتي بلا تي غيس ومروتي بما يدعو يونتي محمد لا غيس موي سما صفا اللهم صل وسلم على ان رحمه ربانيه والياقوتة متحققه حائته بمركز الفهم والمعاني ونور الاكوان متكونه ادمي صاحب الحق رباني البرق الاصاعي بمدن الارباح مالئه لكل به ci tagg الله محمد Muhammad تلا امي maanaa la la muy am ar rijaalu góoru yàlla yi maraatiban ci ay martaba minal malikil allaami jallat anil asr kuñ la wax ni nitu yàlla la la mu am min ko am ci barke tagg yonent yàlla Muhammad bii naa la ma naa la rijaalu maraatiban bii ci tagg yonent bi naa la ca la amee maanaa la la muy am arrijaalu góoru yàlla yi maratiban ci ay martaba min almalikil allaami jële ko ci yàlla mi nga xam ne almalik mooy buur al allaam mooy ki xam lépp jallat anil xasri am na ñaari firi jallat jafe na anil xasri takk màggaayu yàlla wala nga ni jallat jafe na anil xasri takk màggaay bi ne ci tagg yonent yàlla muhammad ya sayyidal kawnayni ya alamal huda nee na sangu àdduna ak àllaaxira yonent yàlla Muhammad la alamal huda drapeau njub yonent yàlla Muhammad la yow mi nga xam ni yow yaay weer wi mat ci mboolem lef géeju xam-xamu yàlla mooy yonent yàlla Muhammad nambuk may mooy yonent ki nga xam ni mooy biddeewu ñaari nekk téef yi muy univers yépp ki leen di leeral mooy yonent yàlla Muhammad yonent bi bi nga xam ni mooy ki gën a tabe ci kaw suuf yonent yàlla Muhammad ki nga xam ni moom la yàlla yónni muy jëmbi yërmande ميون تيال محمد يا خير الامان يا مجلس السلام متخ ورحمه الله كل القلق قد وسعت من فاجر ومطيع زاهد الباري لو كان بابك لا ياتي ذو اسم فما دعيت غفورا كل اوساري متخ من يون تيال محمد موي يرماندي ادنا موي يرماندي الاخره يا خير الامان يا مجلس السلام سما مبيت يما ام دايوبا فمو يم موي تيال محمد بك نالت الافاق كل فضيل bépp gox boo gis mu am ngëneel ngëneel ga ba mu am pétrole yi ngeen gis milliards yi ngeen gis alal bi ngeen gis ci àdduna bi yépp alal yooyu yépp ñi ngi ko am ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téel xoolal dama leen di nettali lenn ci yonent bi ci ndigalu Cerno yéen ñi nga xam ni bëgg ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel googu ngeen di am ci moom yow mi ko bëgg doo bokk ak ki ko bëggul ki bëgg yonent Yàlla Muhammad leer googu di daw ci yaramam di daw ci jëmmam bokkul ak ki bëggul yonent Yàlla Muhammad dañu laaj Cheikh El Hadj Malick kañ la yonanti bi Amina mi ko ëmb xam ni ëmb na yonanti mu ni ba mu amee six mois jibril ci la ko feeñu min baadi maa qad xalaa waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sajid al umami isa wadaatihi sammihi muhammad baatu muhammad la muy tekki mooy ku ñu bëril ak cant ca moom lolo waral bo demé kaw asaman lacc Mouhamed xamuñu ko xam nga lutax Ahmadu la tuddu ca kaw moy ismu alam Mouhamed moy ismu nazilam motax yunus yonent Isa ba muy déclarer ñëwu yonent bi dafa ni wa mubashiran bi rasul yati min baadi ismuhu waxul Mouhamadu ndax ñewugul won ci kaw suuf. ñu ni ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tok ci xaarul hira ndax foog mu bégal ndongo yi ndax comme ñi ngi ci daara yéen ñi jàng alquran ñi gën ci kaw suuf mooy jàngkatu alquran khayrukum man taallama alquran wa allamahu sidna aboubacar ni yontu yàlla muhammad wax na ni man utiya alquran fa raa anna ahadan utiya min ad-dunya afdala mimma utiya faqad saghira 'aziman wa addama saghira moo tax jàngkatu alxuraan yépp ñi doon jàng alxuraan ndaw ñi ëllëg yomal xiyam seen papa ak seen yaay ci ay chaise or lañ leen di teg tegal leen ay ndëppal or ñu ni waxu mooy xale yi de seeni waajur ñoom yonent bi toog ca xaarul xiraa jibril feeñu ko maa ngi nuyu cerno di la ziyaara bu baax a baax jibril feeñu ko ni ko iqra heure bi may daaneel bu jotee Bachir nga def ma si des na tuuti bu kiiwee rek xoolal Bachir da nga may def nii xoola jibril wàcc jibril ba mu wàccee ci yonant bi mu kott ko mboq wa xattahu mooy mboq ci wolof moo tax xaleel buy jàng alquran foog mu sonn as lëf xalel bu jàng alquran foog mu sonn af leuf ki aime bien châtie bien bam ko mboqee ni ko iqra xam nga lu ko yonent bi tont ma daaka min nuzumi ay min aadati minuma jàng ndax yonent bi nabiyul ummi yi la damul bind damul lire ta moy markazul fuhumi wal maani ndax bu jangon dañ daan yewute mak xam-xam yi mu jàng motax mu bind alquran yàlla ñëw jël ci dënnu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam def ci alquran moo tax lawxul mahfuz bi ñu jëlee alquran nga xam ni fa la ñu takk lépp lawxul mahfuz ñaar la dafa am lawxul mahfuzul kubra ak lawxul mahfuzu sughra lawxul mahfuz bu ndaw ak bu mag lawxul mahfuz bu mag bi moy dënnu yonante bi lawxul mahfuz bi ñu jëlee alquran mooy lawxul mahfuz bu ndaw bi xoola demal ci taysir salli ala lawxika almahfuzi ashrafi min kulli alxalaiqi ya rahmanu yallah yàlla yàlla nga julli ci lawxul mahfuz kon kenn du lawxul mahfuz ba la yonent bi la dënnam la moo tax dina la jaaxal cenno bari lu tax ñu ne alquran mi ngi wàcc ci guddi laylatul xadr te alquran wàccul ci benn guddi alquran 23 ans la wàcc mais lu tax yàlla ni maa ngi ko wàcc ci laylatul xadr gis nga de dafa mel ni am contradiction alquran ñi ngi ko wàcce ci jele ko lawhul mahfuz ci guddi laylatul qadri wàcce ko baytul izza baytul izza moy image virtuelle kaaba gi kaaba gi amna genen kaaba ca ñentelo asaman motax kaw kaaba gi avion du fa rombu ndax juróom-ñaar fukki junni malaika bis bu ne ñi ngi wër kaaba gi te kuko wër doto ñëwaat motax borom bi ni suma wacce won lima bind ci malaika yépp ci kaw suuf ku ci na jël ben pep suuf ba suuf si jeex liy des ci malaaka yi te duñu am ñooy ëpp ñi am xaw xawma ma dégg ngeen dégguleen li ma wax ba si dégg nga malaaka yi yàlla bind yëpp su leen yàlla wàcce woon ku ci na jël benn pepp suuf suuf si yëpp jeex yi ci àdduna bi malaaka yi des te duñu am ñooy ëpp ñi am wa ma yaalamu junuuda rabbika illa jibril wàcc ni ko jàngal mi ni ko lu may jàng mi ni ko iqra bismi rabbik الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ وربك الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم point كلا إن الإنسان لا يدغى أبري لوات مي لي ما لوخ من جك وات تي الله محمد اقرأ بنجك بي موي اذكر فاتلكل وخوكو جانغال ناخ مو راو نيب فاتلكل موي ديفال ديكلانشمان ci xam-xam bi nga xam ni moom la yàlla defoon ci yow ci lewxul mahfuz moo tax jàng bokkul ak xam-xam léeg-léeg nit dina bañ a jàng lu ne ci téere yi ëpp la xam-xam day dem ci nitu yàlla bu mel ni Cerno Hamidou Bane mu allahuma ñaanal ko ci boppam mu raw ñëpp moo tax xam-xam leer la shakawtu ila wakiin suu a fa arshadani ila tarkil maasi واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي موتاخ امام مالك دا فا توك 3 موا موكل امام مالك بي ني جانغ تيرم لومو غيسون موكل يالا كو ديفون لو اك امام شافعي امام مالك لومو غيس موكال مو توك 3 موا موكل مو ديف لي سيخار بومو تدي غودي ني وان كو ني لوتاخ موكلو 3 موا يي دا فام بيس نغا جانغالي دي ген سي جاكاجي رومب بن جيجين بودول سا سخنا ngelaw li ëpp sërëm yeel yi yeel yi tegu sa bët looloo tax trois mois mokkaloo ñun nag léegi koo xam du sa jabar du sa kii nga nuyu fii taf si lex yi wax ku bëgg am xam-xam moytul mooy yàlla bi anna al ilma nuurun xam-xam leer la wa nuurullahi laa yutaa bi aasi yàlla nee na du ma du ma jox sama xam-xam mooykatu yàlla dinga nga am njàng nag njàng jàng nii di tari mais xam-xam dëgg ragal yàlla la koy may wattaqullaha wa yuallimukumullah xam ngeen Ceerno Saidu Nuuru Taal radiyallahu anhu nee na ba may ñëw ci alaaji Malik li gënoon tuuti ci li ma xam mooy fekk mag mu am téeméeri at ma ti tëj ko ci néeg di ko jat ba mu am fukki at mu ni looloo gënoon tuuti ci li ma xam tuuti moom daraan man dégguma alxuraan nag mais Ceerno Saidu daraan wax ni Maodo ko tooñi kam Maodo ko tooñi kam Maodo tooñ na ma da ko daan nuyu am looy sikk ci moom léegi mu def la golo léegi ci saa si alaaj Maalik ko ko dindi ci moom nee na man Thierno du Nourou àggoon naa ci xam-xam nit ñi mu doon nañ tëdd dakaar di nelaw ma téye seen nelaw ñetti fan kenn du yeewu allahu akbar نانا الاج مالك كو روتي تي مان تي بون وندار نديكو ان الكرامات حيد للرجال لا تصف لنفسك فان الوصف لله في كل يوم تطلب الكرامه الم تكن من قبلها استقامه اقرا جانغال خم خم بوكول اك جانغ جانغ موي كي يردي واخ خم خم موي كي ييك دي واخ تا لولو لير لا بو نيتو يالا دي ديف تي يوم bam ko feño ñu ni alaj malik kañ la min ba'd tain wala min summa sittati ash hurin raa kan fi laaxi subh lam yahim wallahu arsalahu lil alamin hudan wa rahmatan ismada jazlun bila wahabi cey man ni ba jibril di feñu yonent bi 40 ans yu matagul won erreur bobu la nit ñi di def ñu ko alaj malik ñaata loon mi bobu yonent bi 39 ans la amone 6 mois 11 jours diggante bam ko feñu ni ko iqra ak diggante bako yàlla di wax qumil layla illa qalila moy ñeenti wër yi dess ya ayyul muzammil ak ya ak ya ayyul mudassir qum fa anzir wa rabbaka wa siyaabaka wa rijsa wala tamnun wali rabbika fasbir diggante boobu ak iqra bismi rabbik ñeenti weer dox ci nga teg ko ci 6 mois yi ak 39 ans yi muy 40 ans wallahu arsalahu lil alamina hudan wa rahmatan ismada jëslun jëslun 40 ans yi doog a mat waaw ñu ni ko waa jibril ndax dina wàccaat comme moo daan andil alxuraan yonent bi waaw bu fi yonent bi jógee génn àdduna naa leen ko laajaat déwén nag soxna yi bee boo ngeen déglu ak waa daara ji jibril ndax dina wàccaat gannaaw ba yonent yàlla Muhammad genné aduna àdduna est-ce que Jibril dina ñëwaat ci kaw suuf parce que mom mission mo daan andi alxuraan comme alxuraan matna ndax bu yonent bi genné aduna Jibril dina waccat ci kaw suuf alaaji Malik ni waaw wa dina waccat xam nga ñaata yoon la fi wàcc mini wa waaw xam naa xam nga lu mu fi wut lu mu fi lijeenti ba mu fi wàcc mini ni waaw ñu ni ko waxal mu ni Jibril gannaaw yonent yàlla Muhammad bu génnee àdduna dina fi wàcc dix fois ndax xam nga lu mu fi waaw dafa am jikko yu mu fiy jël si day toog rek jékki wàcc jël fi benn jikko ndax xam nga jikko yooyu waaw fukki jikko la mu ni balaa sax ma lay wax Jibril ñaata yoon la lay wàccaat ci gannaaw ba fi yonant bi jógee dama lay wax Jibril ñaata yoon la mës a wàcc ci yonant bi ci durant vingt-trois ans yi ñaata yoon duma la wax sax ci yonant bi ci yonant yi jibril ñaata yoon la wàcc tey dinaa la ko xamal bu ma noppee tëj ah Bachir yont yàlla Muhammad 40 ans la ko yàlla yon yónni mu génn àdduna 63 ans muy 23 ans yii mu wàcc ko ak moom ci Makka yii a wara ñu ni ko alaaj Malik bind mi ni yabul li aadama دونال نون سمتا فلنوح ثم موسى لابراهيم عد بمي دال لادريس عيسى حازيا عددا وللحبيب كد الفا فلا تهن يبن بوكو جوخون عرب مفيريكو دوكو في يبن لادم نون سمتا فلنوح نوح summa musa li ibrahima ad bani deugal yabul li adama jibril wàcc na ci mam adama 12 fois ci durant mam adama dundam yeb jibril wàcc na ci mom limu ko yabul fukku ak ñaar nel benn xola yabul li adama nunun summa taa fii dafa tek la ñaari chiffre tek la ñaari personne yabun li aadama nuunun summa taa nuun mooy cinquante taa mooy quatre cent yabun li aadama nuunun summa taa fali nuuxin summa muusee kon jibril wàcc na ci yonent yàlla noox cinquante fois wàcc na ci ci yàlla Moussa quatre cent fois Ibrahima addu bami bu dee maam aadama wàcc na ci bu dee Ibrahima yonent yàlla Ibrahima jibril wàcc na ci moom quarante deux fois daalul li Idris quatre fois la wàcc ci yonent yàlla Idris isa xaasa yaa adadan bu dee yonent yàlla isa dix fois waa ñu ko jeex na léegi léegi nag mu walil habibi bu dee soppee yàlla ba xoola ba muy lim turu yonant yi dafa jaar ci seen tur mais sàllalawul yonant bi dafa ne walil habibi bu dee soppee yàlla bi kaddun alfan jibril wàcc na ci moom vingt quatre mille fois ñu ni ko waaw léegi jibril dina wàccaat ba yonant bi génnee àdduna mu ni waa fukki yoon lan la fiy jële mu ni fukki jikko yi dama koy lim insha allah yàlla fi yàlla bàyyi déwén ma leral ko ci ndigalu cerno yumnun wa hubbun wa rahmun ma'dilun hayaun sabrun zuhdun saqa القرآن بالسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barakatuhu ñu nekk fii si jotaay bi ñu mu bëgg ñi mu war a lim seen tur bëri leen wante ñoom ñëpp day jël seen nuyoo jox ko oustaz Jabel Koyaate oustaz Jabel Koyaate joxal ko alxaaji Malick Maodo Malick Touré Maodo Malick Touré ca Fass Touré moom mu jotal nuyoo yëpp incha allah ki nga xamante ne ku dafa mokkal alquran mu jàngal ay taalibe tamit yu mokkal alquran lu toll ko fanweri at ak juróom mu ngi jàngale alquran di mokkal ñu bare bare alquranul karim yal na nu ko fayal ngal barkal Quran karim eyi so ɗum yawti non mu ne loolu su weesoo oɗo umar fouta mo ganduda ko musicien kono non kadi ko almudo mu ne ki nga xamantene mo do way sank umar fouta musicien la wan tamit taalibe la te kadi ko étudiant ko hikka watta yo alla newna mo tamit étudiant la insha allahu ren lay def bac yàlla na ko yàlla yombalal kurmaddan kam daro ummodoro machallahu o darima o gammi o gammini oustage jabel ha gammo ɓeydi welde yo allah weltine enen kala mu ne loolu moo tax bu mu commencé way toog ceerno mu ne ko déera jugal taxaw yàlla def bu mu jigee mu gammu gën a ñaax gammal oustage jabel ba ñëpp kontaan yàlla na yàlla kontaan ci ñun hay ɗeɗo balɗe tan o yimimi jimol ngol ganduɗa ko kanko ittudimi ɓernde makko haqqille makko min mi ɗum wona haajam ni wona kadi ne himmam kono noon yidde makko e am tan eyyi o yimi kam ngol ɗon jimol hannde ko ngol caringol e nokkuji kewɗi mu ne ngir cofelam to ceerno ak bëggam bu mu bëgg ceerno lu yàggul deful sa un mois moom mu toog ak xalaatam ak ay xaritam ñu defal ñu woy fental ceerno way ceerno moom yoonam nekkul ci yoolu wante ñoom ñoo ko def rek ba pare ñoo wax ko ceerno defal nañ la lii ɗum noon yo allah mawni mo yo barki mo mu yàlla na ko yàlla sàmm yàlla sàmm xale yu fi nekk yépp yàlla yàggal leen suñu kanam ñoom ñépp alhamdulillahi rabbil alamin rawane mbinomi so allah hoddiri en gaari hikka eywa ko fatiha astahfirullah ko salatul fatiha e jawharatul kamali wonata tem o kono noon rabbil alamin ustaji jabel ko haali ko yoni en heeƴi en weeli en weltini en mu ne buñ fi dajee di waxtaan dafa waxoon incha allahu déwén suñuy ñëwee thème bi fatiha ak salaatul fatihi lay doon. ala fatiha am nañu ko salaatul fatihi ak jawharul kamal. mu ne salaatul fatihi ak jawharul kamal lay doon. loolu la loolu la bëggoon waxtaanee ren. kono allah hoddiri oustage jabel ari wonta yo allah dogal oustage jabel ñow o welni ɗum o fewni ɗum o moƴƴini ɗum ha ko fotnomi haalde ko fof nene e nder haala makko he mi barkinima e ɗum ɗon ñëw na rafetal na taaral na baaxal na yiwal na ba lépp li nga xamante ne Thierno naroon na ko waxtaan Thierno mu ne loolu lu Oustaz Jabal waxtaan yam doy doyloo na ko. te yaakaar na ne ñu fi toog ñëpp kontaan nañu ci waxtaan yu sell yu baax yu am solo yu waxtaan fii. seeɗa tan ɓeydammi heen haa yimɓe mbelto kadi ne wonana en yobbol haa hitaande aroore so allah mu ne tuuti rek la ci yokk ba nit ñi gën a kontaan mu nekk yobbol ba yàlla may ñu fekkee déwén incha allah nde wonno nelaat allah subhanahu wa taala to woni to mu ne toowi no feewi no feewi mu ne ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu nekk dafa kawe lool te kala mbiɗo ne mawnina ha mawna e nder he kono kanko e mawnide hay hunde mawnani képp ku wax day màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet màggaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay loolu ngir yow nga màggaale ci biir sabu kala ne mawnidena sallah sallam kono mawnide mawnata ndaxte képp ku màggal yonent sallallahu alayhi wa sallam yow mi ko màggal yow yaay màggal ci biir kadi nder kala baɗanɗo mo gammu allah waɗani mo gammude hay goto anda holko woni gammu mu ne képp ku màggal wax da ngay gammul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne yàlla gammul na ko laata gammu di xew kono sa gamminimo noon gammanimo noon mbaɗɗa ko yamirore wande soo ko gammaale moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da nga def le da nga def ndigal to alamul uluwi woni hadra allah subhanahu wa taala mu ne ci hadra yàlla bi subhanahu wa taala allah wi kanum e denndaangal malaikaaji makko fof ɓe mbaɗan nela sallah sallam gammu yàlla dafa wax ni moom ak malaakam yépp nañu defal gàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaikaaji ɗi nganndaano holno gammirtee malaaka yi xamuñu nu ñuy gàmmalee yonent bi kanko noon o gammi ha o gayni o wi malaikaaji ɗi yo gammu to hadratul qudsi moom yàlla mu gàmmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare mu ne malaaka yi gàmmale leen nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi loolu mooy inna allaha wa malaikatahu وملائكته يصلون على النبي ɗum ɗon hadara allah ɓursu o fof renndi ene mawnina nelaɗo sallah alih sallam mbaɗa ɗum gam loolu moye hadara yallah bi yëpp ak malaaka yi yëpp ñoom ñëpp ñu booloo gammal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eyi nde wonno noon o o yiɗɗo nelaɗo sallallahu alih w sallam te o yiɗɗi tan ko jiɗɗo nelaɗo sallallahu alih sallam kala jiɗɗo nelaɗo sallah sallam on ɗon malama aduna malama lahara mu ne daa fekk moom yàlla subhanahu wa taala ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te képp ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla subhanahu wa taala mu sopp la nga texe ادناك الاخره ويقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله so tawi oɗon jiɗi allah yiɗon tan ndewe am mu ne su nekkee da ngeen bëgg yàlla bëgg leen topp leen ma man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndewe am tan allah yiɗa on soo leen ma toppee rek yàlla so yàlla sopp leen allah noon andine hollandirtire yàlla nag xamal ñu naka la ñu toppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam on noon moon boomɗe ɓe nelaaɗo sallah sallam naati e dairatul imani jiɗi nelaaɗo allah mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ñi nga xamante ne da ngeen sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ya ayyuha alladina amanu نونا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه بدنا مقام ين نقام يلا قام ولا ينتبي سؤال قام مني مثلا سؤال قام ولا ينتبي كان دهون مك رجع نتوب سؤال ده مك مثلا كتوبه كان رجع من يلا مسوق بلد سميجي سوبه ممال أدنى ما ما أدنى ممال لا ما تخل لين جزا الله خيرا عن محمد البصيري من يلا نن يلا فيل البصيري kon noon kadi jasallahu anna khayra cheikh sid haj malik mu ne yàlla ñu yàlla fayal yiw suñu maam maam alaj malik radiallahu taala anhu o to mouhamadul bousayri mu ne mouhamadul bousayri kanko wi mawlaya salli kooku moo wax mawlaya salli wa sallim daiman abadan wa sallim daiman abadan on wootiri ya ayuha alladina amanu moomu tontu ya ayuha alladina amanu sallu alayhi sallu alayhi wa sallimu taslima taslima woni mawlaya salli mu ne mooy mawlaya salli وسلم وسلم دائما دائما ابدا ابدا على حبيبك على حبيبك خير الخلق خير الخلق كلهم كلهم ko soxla o jogino mu ne soxla la amoon moom bu seyri yàlla fajal ko soxlaam ñun tamit yàlla ñu yàlla fajal suñu mbooleem soxla yu ñu am ngir barke sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wante moom bu seyri siiwalul woon téere boobu wante suñu maam Maam Alaaji Malik moom moo siiwal way boobu من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أه. كلا بدو جمو إيه سو ريجون. إيه. من كيف كوك دف جمو سو سو ريجون بي. ساعتيني ساعتينان. نجيك نجيك كوكو يك. شيخ الحاج مالك نجوجي هن بونيس إدر جمو مالك. مام الحاج مالك أم نجي بونيس جمو دينا دف. شيخ أستان تام أن براج ما. تيو ميدف جمو بدلو وانيل دارس ستيابا. كم كوه ببراج دي. تمام تيم أم تيابا. كم كم كوه نيب نجمو أكو أكو إيه سيمبي نجمو أكو أكو ياج نجمو. نجير لومد سام جمو بي أكلومس siwal gamu yi ak lu mu yaatal gamu yi alhamdulillahi rabbil alamin enen noon eɗen jetta ala enen julbe ñun ñu ngi sant ñun nak ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ñun julit ñi nde ñen ben dum do bu ñu li lii de dum do ñu nangul li mbad de dum do ñu def ko mbaɗɗen ɗon sabu yidi men rasulullah ñu defé ko nak ngir suñu stofel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam khasatan nas so allah hokkiima chance haa naate law tijani mu ne rawatina su la yàlla mayee chance nga nek taaliba tijane mu ne su la yàlla defee taaliba tijaan comme nu ko oustaz Jabel waxee sànq sabu gilli allah e neraɓe allah mouhammadi sallah ai sallam ngir cofeel yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e gilli allah e leñol neraɗo mouhammadi sallallahu alayhi wa sallam ak cofeel yàlla ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e anndude allah aduna o holno jogori wayoyde ak yàlla ni mu xamee adduna bi nu muy mujjee so tawi sauvetage arani ko heewi hen fayi ko jeygol su nekkee sauvetage amul lu bëri ci ñoom safara la ñu jëm يلا فينيال سيدنا شيخ رضي الله تعالى عنه منك السوفتاج جامونو مجوكو طريقه التجانيه منك لازم موسي نك اك وظيفه اك الجمعه لازم لازم لولو مو am lu si nekk mënu ko waxe fii si mbot jotaay mu ne wante képp ki nga xamante ne sax woon na di def lazim nga xam ko nga ñàkk koo xam hen اسم الله الاعظم يعني دفال اسم الله الاعظم كبير الذي اذا دعي الله اجاب به اجاب اسم الله الاعظم بي خمانتنا لب لو سي نيان يالا يالا نانغوكو واذا سئل به اعطى لب لو سي نيان باتاي يالا دفال لاكو واذا استرحم به رحم سوكو يرماندلو يالا يالا يرم لا تي واذا استفرج به فرج لو لب لو سي ragal soo la ñaane yàlla yàlla dimbali xettali la ci loolu nag nga xam ko nga ñàkk koo xam moo ngi ci laazim wadifo mu bi sa andi sa anda nga xam nga ñak ko xam lu pour mu gën lu gëna eh, yomb xam wada dum so kay def suba suba wala suba kay kigir wala suba ngon adana yaha makka ad hajj xamal ni sa yo ko defé yaangi dem makka aji ya ngi tawaf def tawaf def nga safa ak marwa nga jamra saa su nga yëg ko nga ñàkk ko yëg da ngay am yool ku def loolu xool bu wattee laazim lan la ñuy xool bu wattee wadifa lan la ñuy def si wadifa astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nga ne benn tawaaf salaatul fatih salaatul fatih nga def ñaari tawaaf la ilaha illa allah la ilaha استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم لازم وظيفه كي من لازم باك وظيفه بغي بوله إيه لازم وظيفه سبا كي سوي داف لازم سبا إيه، وظيفه كي اك وظيفه غون ادمي حج ياغي يعني اج تواتنال تيو يغوكو اي تو لازم تو لازم با استغفر الله ياغي يعني جانغ استغفر الله صلاه على النبي صلاه على النبي لا اله الا الله لا اله الا الله ام غنيتي طواف وظيفته وظيفة به بعد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم نجا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أم نجا كتر يم تور طواف بعد صلاة الفاتح نجا تكتي صلاة الفاتح أم نجا سنكم تور طواف لا إله إلا الله نجا دف لا إله إلا الله أم نجا سيزم تور طواف أيوة، نجا دف noonu noonu maro way mu ne noonu ngay defee safa ak maro noonu la mel sept fois nga koy def laazim ak wasif su ñëwee jam jam jamra ñëw sept fois sept jamra moo am mu ne oustaz euh, Jabel Koyate yaa ko gën a xam ndaxte yow commission religieuse euh, aj bi yaa ko yor eywa andi kadi ne ɗi ko jeeɗiɗi ko tawiwa ko gëna xam jamre juróom ñaar la ɗo yow yaa ngi fii eh, rukkuyel maaga dakaru si sa rukku dakaru waɗa e wasifa ngay def lasim ak wasifa heɓa baraji ngay am yool baɗɗo million ko def ay million yeehe woni tumaranke ko gene xamante génne ay million wam jël biyam dem nekk tumuraanke makka eh, wonde hen tampere mum ànd ak coonoom wonde hen toroxlu mum ànd ak toroxlu bi yow mi nekk fii dakaar nga nekk sa biir rukk def lii nga am yool bu def loolu tawa yahane hay te demoo fenn ngir barke Seydina Cheikh radiallahu taala anhu donc ko ɓuri famɗude hen ko mu ne lii nag lu gën a néew la ci so tawi noon aari e su nekkee nag ñëw nga ci fatiha ɗum mi haalta ɗum loolu du ko wax كون الصلاة الفاتحة وان سو نيوي صلاة الفاتحة لا والقوت صلاة الفاتحة بن بير صلاة الفاتحة اه نو يو ادن نانغال لي نول مودون اك سا خيت ليب ادن نانغال ييب ورمون اك سا وا دك ادن نانغال ييب ليدي مودون اك سا وا بيي ادن نانغال ييب def ko ay. jëmm jëmm jëmm jëmm bu nekk. muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fekk du salaatul fatixi. yow mi jàng benn yoonu salaatul fatixi. yow yaa ëpp ñi yëpp tiyaaba. ɗum waɗi mu ne moo tax ɓe mbiya salatul ñu ne salatul fatihi janngude ɗum lawol gotol ku ko jàng benn yoon fiide to loolu sa yaram aramal na safara ɗum ko ha yimɓe paama tan mu ne loolu ba nga comprendre rek ala wante déedéet mbaɗowo salatul fatihi képp kuy jàng salatul fatihi yow doo dugg aljanna <laughs> mu nekk yow mi jàng salaatul fatih yow doo dugg àjjana fay fooy du fay dem fu gën a kawe ngay dem mu ne aljanna yëpp illi yii na moo si gën a tawe yow fu gën a kawe fu gawe si aljanna nga jëm من لول دو الجنة من أم نلو نك فوف فوف ركلا نك من لول نك سلا يالا ما يلول خمن لول نغتي يوكو بنا أم لنشي أم نغتي صلاة الفاتح الفاتح لما أغلق من خول يا تجوون تي خم يالا يونتب صلى الله عليه وسلم نيو ubbi ko mu def si xam-xamu yàlla ak topp yàlla ak ragal yàlla mun ne wax mun nañu wax loolu ba mu àgg wante lu si gën a wér ci lu mu wax fii ak nitu yàlla yi lu ñuy wax ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay wax ay melokaan yonent bi صلاة الفاتح تصلاة الفاتح إن الله وملائكته تفلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي فوف موي تيسانم غاندا ولا باسا ام nga xam ko wala nga ñak ko xam mun jotaay bi munu ko mbawen halde dum mun jotaay bi mayewul pour ñu muna wax lool yépp ba loolu ñu mun ko dégg wante sang su rajo safina bi wax na ci lu yaatu وانتنك نجي جلّي تينون تيب صلى الله عليه وسلم نجي نجي جه ملكان يونون تيب نجنا يو يونون تيب موي الفاتح لما أقوله يو يونون تيب موي الخاتم لما سبب يونون تيب موي ناس الحق بالحق يونون تيب موي هذه الأسرار ديك المستقبل من لي أي ملكان وانت جلّي برك رك رك موي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من الله مم أي ملك كان لقوان تلو مم جوا في لول مي سكر صلاة الفاتحة جلي جروم ينيدف ولا ولا مخافة من التطويل من سنة كل وان دفر رجل جدل أيوة وقت البتيمة أتجلي فجر جتنا أيوة ما من حال ملو دادون وخلول يب كذنون وان تنك سعيد وشبر خيتي سواد من شبر خيتي إن تفسير أيوة إن إن شرحنا arbaina nawawiyya muy muy sharh al arbaina nawawiyya mu ne kooku du tijaan sax wante kooku mu ngi joxoñ lu moom lu Ceerno bëgg wax fii ndaxte salaatul fatih li maa uliq lan moo tëju woon ci yow nit ki mu ne lu tëju woon ci yow mooy nokki mu ne ku dul nokki doo dund ñaata yoon ngay nokki si sa àddina ñaata yoon ngay nokki di noy ñaata yoon ngay noy sa àddina bi nga bi nga bi ci jamono rek. bi nga feeñee ci jamono. ba tey ba tey. ñaata nokki ngay nokki. nga noyyi. waaw bëri na wante ñaari noyyi rek nee na wante bëri na ñëpp dañuy wax bëri na bëri na wante lu mu bëri bëri bëri bëri dépassé wul ñaari noyyi. ñoo ko bëri ko buy dugg la rek ak buy génn. mu ne loolu loolu moo tax yàlla faratal ci yow nga julli fajar ñaari raka nga sant yàlla nga sante yàlla ci neema bii bu mu la defal ci xéewal bii bu la defal loolu moo tax julli yëpp alhamdulillah alhamdu te te te bi ngay jàng ca saar ba subhaana rabbil azim bihamdihi sami allahu liman hamidahu attahiyaatu lillah mu ne lépp julli yëpp secret bi mooy sant yàlla même geste maanaam haaliɓe mbiɗa o wiyete ko ahmadou to hadratullah sànq yow oustaz jabel koyate sànq bi ngay wax nga ne ahmadou la tudd ci hadara yàlla telna e juulo loolu ahmadou boobu la ñu wàccee ci julli sa darima ko alif ahmadou soo taxawee alif ahmadou la sa tukkiima ko mim haawu ahmadou soo jàppee sa oom haawu ahmadou nga toogee sa sujji ko mimu ahmadou soo sujuudee mim ahmadou nga sujuudee soo toogee deelu ahmadou nga toogee mu ne loolu nag nekkul fenn lu dul ci salaatul fatihi wal xaatimi lima sabaq wal xaatimi lima sabaq holko timmini ko adino ɗum e maɗa mu ne lan mo mottali jiitu won ci yow ko fofadu wonno mu ne noyilo won sa waɗani ɗum a wuurata mu ne lan moye sabab li nga xamante ne soo ko defee nga dund soo ko deful doo dund mu ne mooy ñam ñamani yarani mu ne lekkoo naanoo ko maydere waten mu ne dee si topp <laughs> holno foti neɗɗo ñamata mu ne ñaata yoon ngay lekk ñaata yoon ngay ñam mos bi ngay mos ñaata ngay mos bi ngay mos ñaata mos la bari na mu ne bari na de waa lu yëpp waa de ceer nee lu mu bari bari ko heewi heewi mos bi lu mu bëree bëri paasewul ñeenti mos koko lu tàng ngay mos wala ko wala lu sedd lu neex wala ko métti lu naqari lol moo tax yàlla faratal ci yow ñeenti rakka tisbaar ngir nga sante yàlla ci xéewal bu mu la yàlla defal loolu e wante ceerno nee na nañu jàpp si suñu diine e wante tamit nañu jàpp suñu tariqa képp ku jàpp tariqa bi jàpp nga dëgg ku bàyyi tariqa bi bàyyi nga dëgg yàlla ñu yàlla may ñu ngooy ci tariqa bi yàlla may fekkee déwén fekk ñu ngi yokk te kenn manqué wul suñu gàmmu bi yàlla na ko yàlla nangul suñu ja gàmmu gi yàlla ñu ko yàlla nangul sànq oustaz jabel am na li nga wax mu ne mboolem mbaax yi nga xamante ne yàlla dencal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi may na ko moom yonent bi may na ko nit jullit ñëpp eh. lu dul ñaar gooto eh, heen kenn ki ko calmini junnaaɓe mum mooy ku ku bañal al aquli walidayhi ki nga xamante ne toppul ay waajuram eh, respecté wul ay waajuram mu ne képp ku fi nekk su nekkee sa waajur mi ngi dund su nekkee teraloon nga ko yokkal ngir nga am yiw su nekkee dundul ñëpp du wona dem na nga sax si di ko ñaanal ngir nga am yiw so ɗum yawti loolu su weesoo ɗimo mo haali ñaareel bu mu wax ko wonduɓe ɓe haɓɓe kawrani ñi nga xamante ne danga nekk ak sa mbokk wala sa xarit ak te jiboo leen te da ngeen tongo te da ngeen tongo goote mooɗon fof yéen ñëpp yo raxas sa xol. Euh, na nga làmb sa xol. Eh, na nga làmb sa xol ba bépp rukk bu fa nekk. lépp li nga lépp li nga jot amaloon nit. mu yëg ko wala mu bañ ko yëg. Ah, yow nga yëg nga ko si yow. nga raxas ko ba mu set wicc nga raxasee ko nag ngir yàlla. bul bañ kenn ci lu yàlla bind. mu ne ku baax ak ku bon. ku yiw ak ku yiwadi julli jullit ak yéeféer ñoom ñëpp yàlla moo leen sàkk ñoom ñëpp nag bëgg leen nga sopp leen ngir ku leen sàkk bul bañ kenn te bul bañal kenn yow xoolal rek jëm ca yàlla te bul gestu te ko mbiyam mi ko. te lu muy wax chaque jour. yaa yaa di dox. di di wakku tànk. munul and mënul and aya da ngay dem rek basa basa ya jare nga bañu gestu non eden daf daf do mu ne kon ñu ngi yamal fi wax bi waxtu bi jotna si sen ndigal yeen ñep ñu jang fatiha ñu jull ci yonante bi salatul fatihi ya, ya latifu set fois ya eh, neuf la jene eh, ya latifu 9 fois eh, ya yalla nañu yalla may fekke dewet ñun ñëpp képp ku fi toog yàlla na yàlla may yokkute ci yàlla ba nga yëg ko yàlla nañ yàlla may tamit yokkute suñu àdduna bu ñu yëg ko yàlla nañu yàlla suturaal suturaal bu sax dàkk yàlla nañu yàlla sàmm sàmm suñu diine lépp lu ñu bëgg yàlla nañu ko yàlla yombalal lépp lu ñu ragal yàlla nañu si yàlla musal yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla def jàmm ci mboolem réew yu ñu wër nattu bi nga tudd corona yàlla nañu ko yàlla teggil mu ne loolu yomb na ci yàlla yàlla ñu ko yàlla defal su ko yàlla teggee yàlla na ko yàlla remplacer lu gën korona ci ci yiw tàmbalee ko ci wér ba ci am-am ba ci mucc ba ci euh, sécurité yàlla nañu yàlla defal loolu yépp bismillah في المسبق جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا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 وآله وسلم من لا يبال إلا دفلني خدرو آلي مفخم دائما سامي مكرم جاو جاو المؤثر وجهه فاق الخلاف

جل من أنت وجوا رأسه مسك وأنبا سعره دا جلايا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من لا يبين والجبين البرق يلمع بنوري بالنور يشدع لي لسبق مرتلا عينه تسبي عذاب محمد يا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Barom gundiki ainungusau daka'illah dalatul adzjamila bak jatuh saminjalila kadufahal وسلم وأجرني من ليل إن أوزار الثقال آثار ومسك معتر ريح وشكر مكرر نطق حق مكرر قوله أخلى المخاطر وروائي عن بريا خيجت فكري وبا صلى الله عليه وسلم الحرب والمباسم سكريا والسنايا لؤلؤي ينبي والروائي أنبريا قيجت فكري وبال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والبحر ذات كلل في سناء حتى كمل واستياء حتى زمل بالمحاسن والجمال يا محمد يا حبيب صلى الله عليه وسلم يا محمد كل يوم مكة يونن أوزار دفلني صدرو كنت المعارف والمعاني والطائف جاءوا للهم صارف دبوه بسل النوال أشرف الخلق سيد الورى الخاتم المنتهى يننت بكفو بار المكارم والعطايا والأنائم جودوا للخلق عامهم فدلوه يا بالمصار يا محمد يا حبيب أسرف الخلق يا محمد sayyidul wara yow la yàlla wóolu in hawza yonent bi ba nu ilmun wa hikma fahmu sirun wa nihma qalbu nurun wa rahma jalla bari tu jalal yonent bi masiyu fi sori alam wal ajar salla wa sallam bi baraina tu sallam wa alayhi dilluma